bëgg ngeen delloo si xel yi dëgg la fii mi ngi doon dund waaye dafa war a gën di dund du dëkk dynamisme bu change ndaw la quel que soit alpha rek ndem ràññee naa la nu ma la mën a ràññee baax nag li jàpp rek mooy ma kon jàppal ni xewal la ci yow ràññee gi du dëkk am na importance lool pour ngeen déglu ma tey am jigéen fii xam ngeen borom pàcc bii borom màggal nii ca turu mag yi wax du nag nisfu Shaaban am muy bis bii di daje ku tedd ki ak Cheikh Ibrahima Fatim mi mu dénkoon lépp bi muy jógee ci géej gi jóge Gabon muy nisfu Shaaban donte bis yeeg semaine yeeg weer yi lépp guddi yeeg bëccëg yi lu ci nekk la ca diw yiw mu ngi ci ku tedd ki moo ko moom am ay bis yoo xamante ni bii dañoo bokk ci yi ëpp aw yiw da ku tedd ci guddi yeeg bëccëg yeeg bis yeeg weer yeeg at yeeg semaine yeeg ak saison yi yiw yëpp ngi daje moom waaye bu ngeen déggee tanzimul akbar di màggalu Tuuba ku ne xam na ni mooy ëpp yiw nisu Shahbaan noonu shahru Ramadan noonu rabiul awal noonu yooyu ñu koy tànn bis bii di sunu bis ma ne benn laa koy def ma ni koy def def ko taa ma ko suuta defaat muy de te de Daaru Cees Dakar ndax li ko waral la ko waral ma bëgg ñu delloo si xel yi la ma wax fee Cees rek moom laay fekk li fii nekk murid rek doyul nekk murid saati rek doyul waaye muridan saati xam woon na bii lan ndax na bii la ko tëdd kii woon yoon wi noo war a gën a sant noo war a gën a sant réew yëpp ñun waa Afrique ñoo war a gën a sant ndax ci tax ak li tax ñun ñëpp nañu war ba jug daf mu ak yàlla nu bàyyi ko ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul puus ak tiiree nañu ko ko bàyyee wax naa fee ca Thiès ni bu problème amatee ci Sénégal nu na problème warut a amat ndax jamono yii ñun ñëpp ku ne jàng jàngat nga ku ne jàngat nga damay bañ a détaillé waaye ku ne jàngat nga li xew ci Sénégal mu kersaan ñu bare bare bare bare pourquoi muy kersaan ñu bare bare ñun dañoo war a roy waaye waruñoo roy kenn te mel na ni violence ak yuy ñaaw mel na ni ñun ñoo koy rey. jaay mel na ni ñoo koy rey ñeneen dara jot te noo am ki noo am. libéré ñu ne fa lay sa yuy jibu sawaat ma gis gi safaaratal fata usu al fahm ba noppi ñun ñuy amaat li ñuy amaat fii ci réew mi. te ku ne xam na ni ba muy soog a jóg daf ne xadd antanil yow ma hubbul ahli wal watan dana gaalal koor ma lu dul bëgg sama réew ak sama ñooñu réew si ma bopp. te moom moo wax ni waa jaxani bil bishri kulla wa kulla shahrin wa aqudu xawmi te ku ne xam na ne moom buy jiidal peuple am daf leen di yóbbu vers le bonheur vers le bonheur أمرني نبيل أم أصارع بأنني ملازم ومفسوم فمن أراد الخير في الدين دارين فليلز بي Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un nazir. Et dernier recours, et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. waaw ñun ñuy xewal li ñuy xewal fii ci sunum réew waaw mel ni dañuy toppandoo ñi nga xamante ni bii dara gëmuñu ni après la mort leneen mën naa xew la vie éternelle dara jëru ko ñun ñëpp war a mel ni dañoo jàngul ma dem foofu sëy nii mel ni dañoo jàngul naax jiw naax jiw xabaar nanu seetaat sunu bopp te dellu si xel yi te ñëpp ñaan Cheikh Mouhamadul mu gën fee yàgg te wér ak Cheikh Mouhamadul Bachir Anta ndax sëñ Mountakha de defe naa ne kenn ko wax kenn ne gis nga situation bi ni mu ma wax ni dëgg dëggi état day soutenir peuple da leen di yërëm état day yërëm ay citoyen état dafay fexe dafay fexe ba chaque citoyen sénégalais fa bu nekk bu nekk fa fierté mhm. la muy dund mu jëg dund mu ko mu fa muy dund ak la muy la mu koy def avec la paix mhm. peut ki ba mu ne nafar demi waaye daf caa teg ne fan fan liyal jeex waa naa man de jëriñ nga ma yow yàlla waaw waaye ñii te buy wax samay mbokk Sénégal yi yëpp lool ak Sénégal yi yëpp kenn génn ci jëriñ ni fan fan liyal jeex war axawaati waxi na on dit waa naa doxal suñu digganteeg les ku tedd ki dëgg la te démb fayuwul waaye yàlla daf ko doon fayu anta la di min hidal islami mun taxima wanen taxam tax bi ma def darta ya allah أخرج عبادك سرمة من رحمتك ولتقم منهم بأبقاء نقمتك ba taxoon ba ci dimbali Ndiaye ma ne man su ma neexoon ku ma tooñ ma ne ko tedd ki fayuma waa ku tedd ki moo wax ne sama waay ku ko laal. bu ma ñëwee sama kool de day dal dama bi ma soog a laaj lu xew. jërëjëf Serigne Touba. waa yi la ma tàllal. ku jeex ci yàlla ak yonent bi. tey dundal lislaam diine yonent bi. la mboolem yonent yàlla yi yónnee. ñoo àndandoo ñëw ma jiite wàll yi. yàlla miy def di ko soof moo ma jiital. waaye man sama ahmadu nii laa jiital hmm. alastu bi rabbikum ba ko yàlla waxee maa ko ko ci yonent ba mu ne bàllee léegi nag tey bii jamono maa ko moom li fiy tax a mucc it maa ko xam xasan surtout yonent bi jàmbaar ga moo di doomi at yëx fatil jàmbaar ja sëy ndéeri mariama maa mi móodu dafa am sama ngërëm moo tax ma jox ko móodu laay tëjee mbirum Cheikh Ibra Seydi Cheikh Ahmadou mu nee si daan def moo seet ba doomi fàtte waxoon na nag jar na mu kenn du fàtte dencoon ci moom sama di doom di doomi fàtte ku a jaarale ci ko gi dafa tëb moo tax mu jaarale ci benn affaire bu jar na yu ma bii jamono ak ci bii xaar moom doon ko jumtuwaay yu yéeme yu kenn mës a am ndax damaa yéeme lu ma mës a jox nit lu koy ñëwal tudd ko rek la yem waaye du moom te du moom yàgg ba wu dara yoo fi wax man de dinaa def fépp nii laa leen wax. lamb démb ca ñëpp nañ ci daan borom loxo bu sew bii bëreewul te moo daan Zeyn Ahmadou sama yére yii moom laay waaj bu ëllëgee bu ñu may fay dina ma yore suma tur yi xam ne keneen bu ñu ko wooyee sama xel dafay dem ci man doomu aadama moo tax su ma sañoon sa war a dafay fay Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Thank you. tabarakallah dégg ngeen taalif bi ni ma ko taalifee ak ni ko Baara Fall waxe Baara soutien bi ma koy defal kuy defal loo te daal nga demal ci noonu. dëgg la. borom Touba dara kañ ci ku dem bañu di la faj bu boobaa ngay soog a sañ di sax xam ni mbaa. ma ne xadd fàkk ab laa laa leen waxoon nett li leen waxi ku tedd ki xadd ba fàkk laa addurru walla wan naf mu jaayi fii asmaain ci époque yëpp lay valable nee naa leen Matlaboul Fawzayni tey balaa ni mu valable ci Touba noonu lay valable ci Njaaréem ak Mbàkke ak Daaru Salaam ak Daaru Muxti ak Daaru Manaan yi ak Daaru Kuduus yi ak Daaru Minaan yi noonu lay valable ci Cees ak Dakar ak Kaolack Ndar ak Fuuta Matlaboul Fawzayni day valable pour fépp waaye noonu itam naka noonu itam naxajul wax day valable pour fépp nanu wëlbatiku ci ko teg bi njiitu mi nag li ma koy wax mooy am na yoo xam ne bu ko defee dina mucc réew mi dina mucc dina sowee réew mi dina sowee ma ne Macky am na yoo xam ne bu ko defee fii réew mi toll nii am na yoo xam ne bu ko defee bientôt fii ak ñaari ak sànna tey nii Sénégal doon geneen Sénégal waaye loolu faaw mu def ko bu ko def jafe-jafe day am